de suite. Mhm. te Olof Ndiaye parce que fin février début mars deux mille vingt et un la woon. merci beaucoup te mars ñëwaat na ba dem yoonam. Olof Ndiaye daal moo wax ne. Olof Ndiaye mm. yàpp xaj bu seddee soof ndem dañ koy lekk. <laughs> yow moom da ngaa bëgg bëgg daal ñu dem procès. te lii dafa commencé soof. Mm. soof gi mooy. Mm. mënuma comprendre que déjà boobu ba léegi jàppal Ousmane Sonko bàyyi Ousmane Sonko andil Adji Sarr bàyyi Ousmane euh, Adji Sarr waxal ci lii dossier bi lii la ku nekk di wax ay waxam. te ba léegi kenn ci sénégalais xamul. ku def ak ku deful. daye mhm. sax dama jàpp ne tous les sénégalais sont pareils devant la loi. waay ñëpp a yem si. ñëpp a yem ñëpp a bu fekkee ba nee nañ ci mbaxee ne doonee benn. loolu laa benn mbax naa fa nekk te dañuy wax si tubaab ne nul n'est au-dessus de la loi. Mhm. bu ñu bëggee dem ba toll benn dimension boo xamante ne dina am koo xamante ne bu loi demee ba ko mën a woo. Hmm. ba justice mën koo wala moo justice boobu koy woo. Hmm. moom si boppam mi ngi xool nan lay fexe ba woo ko di teg ay schéma di jéem a xool ay système yoo xamante ne justice boobu nag mu ngi commencé wane ay carence ay faiblesse. Hmm. parce que ñaata yoon dañ fi waxoon ne dañoo woo ba ñu euh, relayé ko si presse bi. gis ñu Ousmane Sonko fi nit si réseaux sociaux ñu ngi wax ne dañ koy woo temps de jour. gis ñu Ousmane Sonko wuyu ji ko te yow si à l'entame de vos propos wax ne que avocat am na jot na li nga xamante ne mhm. mooy convocation benn caay avocat c'est bien c'est na ko kon alhamdulilah comme ñu jàpp ne war naa a wuyu ji waaye de si presse bi ma ne li ma jaaxal mooy beneen tull noonu dégg mhm. parce que si ma juumul presse ñoom amul kenn ku mën a wax ne réellement ne Ousmane Sonko la ñu mënoon a la ñu convoqué ndax ñi ngi wax benn tuddaa boo xamante ne Oscar Sierra loolu loolu beneen affaire waaw ma ne ñu ngi wax noonu ah ni noonu ñu

Euh, il faut mu am temps xool li nekk ci dossier bi bu dee am na ñu mu ci war a déglu et cetera looloo tax mu mu jël tout à fait d' avec vous. Mhm. man kay sama seul problème mooy dama jàpp ne mhm. Ousmane Sonko à part tout euh, c' est un politique. Mhm. c' est un leader de parti. lu mënta doon siw na. waaye sénégalais la. comme tous les du sénégalais. comme ni Bamba nekkee sénégalais comme tous les autres sénégalais. comme ni mm-hmm. Macky Sall nekkee sénégalais malgré tout il est président mais comme tous les autres sénégalais. Mm-hmm. comme ni Adji Sarr nekkee sénégalaise comme toutes les autres sénégalaises. Mm-hmm. ñu woo ko si yoon. dama jàpp ne soxla woon ay schéma dugal fii génnal fële dañ koy woo dañ koy bàyyi dañ koy annulé di xool. parce que fii am na ñoo xam ne ba leen fi woowee dañ koo taf tafee. ñu wuy ji. Californie ba ki demoon yaay lan moo ko tuumaal kan lan lan la xewoon jigéen moo ko tuumaal wuy ji na. gis nañ fa mujjee. mais Californie Ousmane Sonko. waaw ma ne loolu laa bëgg a wax. waaw. mais devant la loi ñoom ñëpp a yem. loolu laa bëgg a wax yaa ne Californie dañ ko mhm. mhm. ah, léegi mhm. peut-être loolu laa jàpp ne Ousmane Sonko léegi fexe na ba xaw yi foo xamante ne moom fa mu àgg yeneen Sénégalais àgguñu fa. mooy moom boo koy woo da ngay xool noo koy woowee. moom boo koy woo da ngay da ngay xoolaat sa toogaay moom boo koy woo il faut nga préparer ko il faut nga ut noo koy defee waaw kon cela veut dire que on a une justice faible nous avons une justice faible. boo xamante ne est-ce que faiblesse la waaw faiblesse la. est-ce que faiblesse parce que dossier quand même bokkuñu. waaw te gis nañu fi ñu jógee ba fii. peut-être également am na yeneen yu ci laxasu yoo xam ne ñun ko. parce que bu fàtte ne fukki nit ak ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan mais mën jàpp ne may gis nii ay signe de faiblesse laa gis quoi. Hmm. mooy déjà di teg ay cote pour mën a convaincre nit. Hmm. en même temps di jàpp ay jours di bàyyi jours di tegaat yeneen jours. non cote yooyu moom waa police la la c'est pas du domaine de la sécurité. parce que ñoom tam dafa am nu ñuy waxee seen biir dafa am nu ñuy suis entièrement d'accord avec waaw, vous waaw. mais dama jàpp ne kon cela veut dire quoi hmm. que justice bi fa mu toll hmm. mooy dafa war a lii nii bu si waroon fulla gu mat sëkk hmm. dossier Ousmane Sonko bañ ko war a atte du woon léegi bu yàgg lañ ko woon a parce que mënuwoon àgg fen foo xamante ne tey bu lu muy gën a dem yenn Sénégal di gën a jàpp ne kon lii nii ay tuumaal la lii nii ay manipulation loolu moo andi tey lii fi xew nii léegi nag dama jàpp ne li si am solo ba am solo mooy léegi lan moo tax tey ñu xëy-xëy bëgg yóbbu li nga xamante ne affaire bi si si yoon parce que peut-être que na ne ñoom lépp pare nañ nekk wax moo xam ñi def live moo xam ñi def euh, li mooy euh, seeni Facebook wala seeni réseaux sociaux ma ne li nga xamante moom la ñuy si ay live ak kuy wax si mbedd mi parce que si biir match mhm. mhm. mhm. kaas moom bokkut si biir match bi kon du ko jël en compte te dama jàpp ne ñi def ay live ñi def li nga xamante ne mooy ay vidéo di wax lu leen neex loolu yoonu justice nekku si <laughs> léegi nag justifie nan la bëgg a woowee Ousmane ko nañoo jéem a wax ne sénégalais yi li ñu soxla. Hmm. mooy dañoo tuumaal ab sénégalais kenn waxul moo def. Hmm. kenn waxul deful ab sénégalais moo ko tuumaal na fexe justice boobu nekk sa dëgg. waxam li nga xamante ne mooy la loi wax li nga xamante ne mooy éthique ak déontologie xool aussi devant Dieu mhm. ci kanam yàlla ba xam ku def ak ku deful parce que sénégalais la ñu bëgg mooy ñu xam ba xam Ousmane Sonko moo def wala defu te Ousmane Sonko wax mosul wax ne mhm. leen ma mhm. waaye nag justice boobu nag wax ne na am fulla na am fayda nag ko teg si yoon que nag justice boobu dañoo yàgg nag ñaaw jot si justice bi parce que ay dossier politique dafay yàgg jaar ku si mel ne Karim Wade tey mënoo woon wax justice boobu moo ko tuumaaloon tey ñu ngi wax waxi am na si Karim Wade ne léegi lañ ko doon toppee duñ ko toppee dara cela veut boobu nag moo war a fexe war na fayda hmm. war na fulla ba hmm. Sénégalais yi koo gëm hmm. mën ñoŋ parce nag li justice doxee yenn saa am dossier yu ñu teg ay conc am dossier yu ñu bàyyi loolu tax Sénégalais gëm bii de teguguñ ci conc alpha alpha appel oméga alpha appelle appelle hmm. je crois bien que c'est un code. yo yo yo yo da ngay le terme militaire de guerre. non je dis je dis ah, ah. tu tu l'entends tout le temps. Mm-hmm, mm-hmm. la police nga toog ah, mm-hmm. ñu wàcc sur le terrain. de la police. nga dégg ñu ne Snake. appel je sais dragon parce que ñoom ñoom noonu la ñuy voilà mais c'est que le directeur police bu fekkee ni bu document boobu c'est authentifié mhm. defe naa ni Oscar Sierra X mhm. euh, police am na sañ-sañ buy joxe bataaxal mhm. euh, ak ay nitam bañu bindu tur c'était nommément nit ki pour wane ne effectivement ñu waajal leen parce que itam daañu leen soxla par rapport ak lii mën a anticiper déjà loolu il faut ñu tegee ko côté pour mu pour mu élément moo di Euh, la convocation par rapport ak li nga xam ne police génne na ko defe naa ni ça n'a rien à voir rien à voir ak la l'aspect purement judiciaire judiciaire mm-hmm. l'aspect judiciaire nag je pense que Ousmane Sonko itam il a beau être sénégalais mm-hmm. mais itam il faut dire qu'il n'est pas comme pratiquement Ablaye Mbow mm-hmm. parce que tamit dafa am foo xam ne dafa nekk comme noo fa yeneen ay yeneen moroomu politique nekkee si mhm. langue bi mhm. ñu ràññee leen si bu baax mhm. ñu nekk fa itam suba kuñ si convoqué woon defe naa am na mbooloo goo xam ne lay dar sëy nit daañu ñëw Bougane buñ ko convoqué woon suba si lenn ay nitam daañu ko dar euh, euh, euh, Malick Gakou buñ ko convoqué woon si lenn ay nitam dañ koy dar je rappelle parce que Ibrahima Pouye en faisait partie de ces jeunes qui s'étaient rendus devant les grilles Wow. ou devant les de la division des mmh. investigations criminelles. Mmh. Alioune Tine en faisait partie. en mhm. tant que leader euh, au sein du m mhm. ak yeneen wala boog leader sax de la société civile. Ah. Mhm. et tant d'autres euh, ñoo xam ne dañoo ñëw. toog toogoonu fii nga xam ne lañu ñu convoqué woon président Macky Sall pour déglu ko. dans li nga xam moo di accusation yu ñu porté woon moom par rapport ak li nga xam moo di soi-disant blanchiment d' argent avant Macky Sall ñu ngi fàttali ko également mbooloo ma toppoon Idrissa Seck mbooloo bu toppoon bañ koy convoqué mhm. bu wuy ji mhm. ce n' ak Ousmane Sonko non ce n' est pas pareil mhm. euh, Ablaye bu wuy ji suba ce n' est pas pareil ak Bougane bu wuy ji suba mënut a bokk même s'ils sont égaux devant la loi constitution li mu bind dafa leer mais dafa am cër yoo xam ne nag dañ koy nangu nii nit ki am na ko. Mhm. cër googu nit ki am moo koy may. il faut faire avec waaw moo il faut faire avec mooy mhm. mooy.